ubbite juróom-benneelu édition forum Galien Afrique amal nañ ko ajuma ci njiitalu ilimaanu jëwriñ yi thème bi ñu tànn nag ñu ngi ko jagleel feebar yi nga xam ne du wàlle ñu koy wax maladie non transmissible Amadou Ba di dellu ci waat ci solos ndaje bi mu jàpp ni jot na ñu dooleel xeex bi ci lu soxal yooyu la feebar. cette année bi ci feebar yi nga xamante ne euh, du wàlle ci la soso ba noppi dafay euh, laaj am paj moo xamante ni dafa cher trop te loolu daanaka fépp foo dem ci àdduna bi di nga ko gis. loolu ñaari jafe-jafe la euh, tegu ci ndoddu population yi nga xamante ni ci Afrique lañu dëkk dañuy tax ba suñu système de santé du am doole bu baax. ci loolu ministère bi ñu dénk wàllu wér gi yaram teg na ay pexe ngir gën a baral xeex bi ci lu soxal feebar yooyu nga xam ne du wàlle. au Sénégal. fii ci Sénégal euh, ministère de la santé ak action sociale ñoom euh, lancé nañ benn programme boo xamante ni dañuy def lépp euh, bay xeex lu jëm ci feebar yi nga xamante ni duwale ba noppi dafay enquête fépp ci Sénégal ci feebar yooyu loolu dina tax ba ñu xam dëgg-dëgg lan mooy danger mbir mi. bu ñu sukkandiku ci professeur Eva Marie Coll Seck feebar yooyu mu ngi gën di law ci biir Afrique loolu moo tax ñu war a yokk koppar yi ñu dugal ci biir xeex bi. que nous avons un double feebar yi nga xam ne ni du wàlle mu ngi gën di bëri rax ci dolli jafe-jafe yu muy indi bëri na lool loolu moo tax ñu war a yokk xaalis bi nga xam ne ne dañ koy dugal ci xeex lépp lu soxal feebar yooyu le pour pouvoir prendre en charge les malades ne suffiront jamais. at mi nekk forum galin Afrique dafa beral loxo ñi nga xam ne moo di ndaw étudiants yi moo xam spécialiste bu ñu mënti doon liñ ci jublu rek mooy ñax leen ñu gën a dugal seen loxo ci xeex yooyu la feebar nga xam ne lu muy faat ci àdduna bi bari na lool rawatina ci biir Afrique.